السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك جولي دي نيغ لين دي دي زيارة دين بال حق دين بال دي نيان سون بروم يالا يالا نيو ديفال توفيق ديفال نيو دونو غو باركيل اك جام يالا غو نيو نانغو ديفال نيو سوتورا سامال نيو سونو ديني دغرال سونو نغم تانك نيو تي بباني فاتو تبارك القرآن الكريم بارك يونتي على محمد صلى الله عليه وسلم بارك سنو سرين شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه ني ني مبولم كلفة يب ينبال حق أه sujet bi nga xam ne nag mooy wàllu weer ak wàllu koor ak kori bokkul ci sujet yi nga xam ne dañ ci daan faral di wax ndax day sujet boo xam ne lu ñuy wax def li la neex ak topp la nga gëm ak def la la doy ak wone ci sa bopp daf caa bari maam nekul sujet bo xam dañuy xol la diine ñun ñëpp ñu daat cay and ci ak yu ni mel bu weer ak woré tabaskek yoy taxawé rek ci nga gis né nit ñi bari na yuñ bokk lewul dangay gis ñu ànd lool waaye bu weer wa jotee foofu lañuy ñuy tàqali koowe dangay gis ñu gëmante lool waaye bu weer wa jotee ci lañuy ñuy weddantee dangay gis ku gëm say wax lool waaye gëmu sa weer ak sa wori gëmu ko dafa mel ne ku nekk bu lool a jotee da ngay jël sa yoonu bopp moo tax daanaka xaar ba bis boobu jot ngay bëgg a wax ak nit ñi day xaw jafe moo tax li doon sunu aada ci jamono ju nekk rek mooy loola bu jotee daanaka lañ ca jàpp ak lañ ca gis ñañu njabooteek ñi nekk ci seenu responsabilité ñu sant leen loola wala teg leen ci yoon woowa daati wakkirlu ci sunu borom yàlla rek mu jeex daanaka daal weeru koor boo koy xool weeru maatay lay nural koor yeeg koor yeeg yooyu maatay ak li ma neex laay def def ciy wëri amaana nit ñi ñooy nekk ci dëgg nag man may def maatay ak yu ni mel waaye daal booloo wuñ xool lay dëgg ñu topp ca moom loola nekkuñ ci maa ngi déglu tey RFM ñu dalal imaam bu ñu imaam Makhtar Njaay ci commission bi séentu affaire weer la bokk e, ñu laaj ko ci réew yi nga xam ne dañuy woor ak di wori te du am problème lan mooy problème mu Sénégal wone na Sénégal beneen kaa bu particulier moo fi nekk mooy dañu am ay affaire ay tarixa ak am ay kuréel am ay mouvement dafay mel ne daal yooyu yooyu ñu am moo tax mbir mi dafay jafe daal ci ni ko waxee moom daanaka kon liñ li li wax ja daal la muy tekki dëgg-dëgg kon mooy feek ay tarixa ki mouvement ngi am nit ñi duñ mën a ànd dafa mel ne kon mouvement yi ak tarixa yi suñ déggee waxam dafa mel ne est-ce que yàquñ mbir mi kon <coughs> te fekk ñoo ko waroon defar manes na koo déggee ci nim waxe waye tay nak man sunu wax ci sujet bi nga xam ne daawuñu ci wax jëmul ci këru diine yeeg seen taxawaay ci mbir yi ndax incha allahu jàpp naa ne kër yëpp danañ bokk wareendoo suba ci àllarba gi dafa am nag ñu ci daan beddeeku ñoo xam ne dañ daan jiitu ci koor gi daan jiitu léeg ci kore gi te ñun ñu yàgg a wax ne ñooñe lépp lu ñu def walla ñu wax ko wala ñu doxal ko du dëgg même bu nekk même nuroo dëgg yàlla taxul diine taxul même bu ko nuróowee dafa am ab benn ligne bu ñuy topp rek ci kaw loola la ñuy ci kaw loola la ñuy su ko defee lañ xasee taalibe yenn yi naan dañuy diglu seen sëriñ ñoom noonu la ñuy seen sëriñ lool nag dafa ma soon a leer tey de gën a leer nag ndax Arabie Saoudite du sukkandiku ci gis-gisu keneen loolu kenn du ko weddi loolu ñépp xam nañ loolu Arabie Saoudite lu génn Arabie Saoudite du ci sukkandiku maanaam deesul mën a wax ne eh, benn dëkk ci réewu naar yi woor na Arabie saoudite ci gis-gisu dëkk boobu la sukkandiku déedéet Arabie saoudite ci gis-gisu boppam lay sukkandiku moom ndax xëy na dafay wax ne suufam yaatu ne yaatu ko wax ne bu ko ci gisul rek mbir mi mën naa doyloo xaar ba subaak yu ni mel waaye <clears throat> taalibe Arabie Saoudite yi nekk fii nga xam ne daanaka boo xoolee ibaadu yëpp taalibe Arabie Saoudite lañ waaye ibaadu yi ci seen biir to bool nekkuñu benn maanaam ay kuréel lañ ay pàcc pàcc yu bokkul waaye ñëpp daal rafetlu nañ mbiri Arabie Saoudite doyloo nañ ko itam illa qalilan ñooñu doyloo mbir Arabie Saoudite nag ba mu ëpp nag ñooñu la ñuy wax wahabiya mooy ñooy ay Mouhammad Ahmed Lo ña ña ko dar wër ko ay musulman de Dakar ak gaa yooyu ñoom liñ daan njëkk a woore nit ñi dafay fekk ne Arabie Saoudite daf ne weer wi feeñ na foofa su ko defee ñu sukkandiku ci gisu Arabie Saoudite buñ ci amee Sénégal dolli ci buñ ci amee Mali dolli ñu ci amee yeneen dolli waaye Arabie Saoudite ga gis ga ci lañ dépendre suñ gisee fii day nekk ndollent suñ gisee lu ñu wër day nekk ndollent rek tey nag Arabie Saoudite gisul est-ce que seen tuna sax waaye àllarba lay wari pour nga xam ne Arabie Saoudite gi rek a compté woon am na ñeneen ñu wari tey am na ñu gis tey am na ñu sukkandiku ci gisu ñu ñu wër am na ñu wax yu mu feeñ fii ci réew mi ana musulman de Dakar ana Mouhamed Ahmed Lo mi waxoon ne fu weer feeñ ci àddina dañoo war a woor loolu mooy tawhid jullit ñi nga xam seen lépp dañ ko ciblé ci tarixa yi pour ŋàññi ko waaw dañoo gëm ay sëriñ dañuy def nangam dañ di fen ñoo gën a gëm nit ñi fuuf duñ ko kafe kenn wariwul ñépp a ngi xaar ba suba te liñ gëmloo woon nit ñi ci sunna mooy fu mu feeñ da ngeen war a wari man nag bo bayi bàyyiwul wax ci sujet ay wahabi yu nak yu mel non nak di di len tontok wala di wax ci seen bir danaka dama koy gëj def lol lol lol ndax seeni caaxaan danaka dafa leer nit ñi bu mu upp ba wax ca jot bu bari moko wara waral te nit jot amatul ñi ci yeneen yu ñu gënal loolu waaye dafay am sujet yoo xam ne faw ñu dil si waat pour confirmer waat lañu waxoon démb ne wahabiyun lépp lum nekk caaxaan la même bu nuroo dëgg affaire u koor ak koreek gëm ñoo gën a tar ñi gëm sëriñ si Arabie Saoudite wariwu wariwuñu léegi ci lan lañ koy teg ñoom dafa feeñul fii ci réew mi wala dañoo gëstuwul fii ci réew mi bitim réew yii ñu wër dafa feeñul ba tax ñoom ñu ne weer wi feeñul kon musulman de dakaar lim annoncé nit ñi ne weer wi feeñu dañuy mottali ramadaan fanweereelu fan tey mooy talaata ëllëg ca alarba ga mooy première fan ci shawal loolu du dëgg li tax du dëgg mooy am na ñu am na ay jullit yu wori tey loolu warul fekk musulman de Dakar muy woor warul fekk benn wahabi muy woor warul fekk kenn kuy woote woo sunna muy woor parce que am na ay jullit yu ko gis ba dog seen koor tey lu tax gëstuwuñ jullit ñooñ réew yi ñuy wër réew yi ci wori lu tax gëstuwuñ réew yooyu kon benn wahaabi warutu la wax kenn lenn damay xaar sama sëriñ damay def nangam ku nekk daf ci am droit ndax ñi woote woon ne ñoo jege sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo njëkk a xaaj ci yoon wi ñoom ñoo njëkk a topp seeni bakkan te yàgge nañ ko tey nag dafa leer ndax Arabie Saoudite wariwut ñu ñàkk a wari ba pare yëgal nit ñi nag ne leen weer wi feeñul kenn su ko léegi dañuy mottali waaw ñi wari tey nag moom ñoom fuñ ko teg ñu réew yi wari te te jege la ko teg démb gis naa Mor Kébé ñu dugal vidéo am bu muy bu muy xutba di wax caaxaan yi nekk Sénégal dégg nga Mauritanie woor te wóoro wala Gambie woor te wóoro wala mu wari te wari woo mu cay dal affaire sëriñ léegi lu leen tee wori ñoom tey Ahmed Lo def na ci conférence bu am solo ci affaire weer yeeg seen tuyeeg yooyu sol ab mbubb mu bula ak weeram yu ñaaw yooyu wax wax ba géex loola mu def tey mu tax génnul wax ne wori jot na man waxaa bi mësul nekk sama problème dama koy wax man pour nit ñi nit ñi ci am ay doute ci seen caaxaar yooyu mu am lu ko confirmer ndax ñoom wax nañ ñëpp ne weer wi feeñu te ñoom bu ñoom du woon ñoom ñoo war a wax loolu ñoom ñoom toujours rek buñ amee information dañoo war a wari ndax loolu lañu xamal nit ñi ne loolu mooy sunna ñoom nag ñooy jëkk violé sunna moom ñoo ñooñ ñooy nooni sunna yi jiitu ñooy wahabi yu na yi seen yoon newul ci sunna li seen yoon ne mooy la seen kilifa di def ak li leen sant ak la ñuy toppandoo ay nit waaye naan dëkk bi yeeg naa nga ay ay taalibey dëkk lañu ñoom waaw man nag ak ñu bare principe du changer man dekk du ko changer serigne du ko changer keur diine du ko changer dara du ko changer man li ma mel lolou moy dox ba ilay ba ba may faatu dëkk du ma tënk kër du ma tënk sëriñ du ma tënk li sharia sant suma koy appliquer duma xol damay gëm dem def ko ba pare nak door a xool est-ce que kër gi def nañ koom déet est-ce que sëriñ bi def na koom déet dégg nga est-ce que nangam est-ce que nangam alhamdulilah rabbi alamin yàlla may ñu ay kilifa yoo xam ne tegu ci sharia bu jotee ñu wax ko ñu ànd ceeg ñoom bu du woon loolu duñ mën a am sëriñ ñun ndax mënuñu topp nit ci gis ne tey sharaan mën naa cee wari ma topp leneen ngir loolu mënuma ko mënuma topp Arabie Saoudite mënuma topp Demba Saoudite moo tax suñ principe du mas a changé ci àddina waaye dañoo mosoon a wax ne wahabi yu ne yi ci caaxaan lañ taxaw di jaamu yàlla ñoom luñ la wax du dëgg ay musulman de Dakar ak ay Omar Sall ak ay maam ngóor njaay ak weer yu feeñu tak nangam nangam yu ñu mus nekk ci dëgg mësuñu nekk ci dëgg weer nag ak woreek wori moom daanaka duñ ci faral di àddu waaye bile tey moom faaw ñu adresse suñu wax ci yu na yi wolen leen jaar ci sen tour sen ñaka a tay ban justification ci sharia bu dëppoog yi ñu mosoon a wax lañuy mëna am ba ñaka a gi di nekk lu wër ag na ci nafiq nak mom bu bi nan ndox tay ngir wari suba loolu amul problème mu waye lum ci mëna a doon du loolu la jaay nit ñi moo tax kuy topp wahabi bi safara rek ndax ak dëggu amu fa wa kunu maa saadiqiina moom xam naa wahabi yu yi dégguñu lool booy ànd da ngay ànd ku dëggu ku dul changé man de wori naa te nag dama daan déglu musulman dakaar lu ñu wax su ma ca amee su ma ci amee information damay wari damay déglu nit yi tarixa yi lu ñu wax su ma ci amee information damay wari damay déglu ci internet beeg di gëstu su ma ci amee information damay wari dara tënku ma te principe bi du changé ba ilaa yawmi diini wante dañoo yàgg a wax ne wahabi yu ne yi ay caaxaankat lañ te ci diine lañuy caaxaane li gën a garaaw topuñu yalla topuñu sharia topuñu sunna ligne biñ leen tracer ci ligne bobu lañuy top par par kat lañu bu arab wori wut duñu wori li tax ñuy ñëkk woor ñi day fekk arab seydir dafa ñëkk a woor li tax ñuy ñëkk wori day fekk arab seydir dafa ñëkk wori tay arab arab wori wul mbir ma leer nañ ku nekk xamna fu carte gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh